aca gaay e final ndeysaan final poids lourd fii ci Fadial diggante Thieb bu Joal ak Boy Ordi ndeysaan Boy Ordi moom lañ jàkkaar lool Thieb bu moo ñu woon gannaaw mbokku grand landing bi sama grand maa koy bëggee bu baax a baax grand landing sa ndaw maa ngi koy bëggee borom Toubacouta ndeysaan waaye sama caméraman sam ba sénégalais maa koy ziyaare waye gaay bu len faté lamb Zambo le 18 novembre Inshallah le 18 novembre fële jappal ma ngay ngàllu animation mbayang lum lay doon ak xamal babu gang waaw waaw ci bu Joal ak boy Awdi final poalu fi ci Fadial ndeysaan di bëggee sama dëkk waa Palmarin di ko jëlee ngunumaan ngay jaxanoog ji waaye sama grand Louis Samuel sa bër bëgg naa la ndeysaan sama doom day sën sa gadaat maa bëggee di bëggee mafia ñoom Odzo ñoom John waaye sama grand Zal Lukaku maa koy siyaare bu di bëggee waa BG ñoom Tewkid ndeysaan sama doom day Alves le gladiateur maa ngi lay ziare waaye Jean Philippe le grand ak Christian ci biir yooyu bu Joal booy Dakar ba léegi Dakar amagul ndeysaan bëgg nañ une minute trente secondes final poids lourd meeke na Mbisel meeke na Fadiane du booy om di waaye di bëggee waa diaspora bi sama grand Seeku Baba maa ngi bëggee bu baax waaye sama grand Falang sama maa sama doom sama siga sama grand Ousmane Sow maa ngi lay ziyaare sama Dombe, day Etienne Lazare Diop bu Joal Boy eh Diop bu Joal Diop jàpp na Agboy Ogni Boy Ogni Diop Boy eh eh gel final Jeb ini na Boy Ogni dengan nga jël Boy Ordi da ngay jël avertissement Boy Ordi am na avertissement Gueye bu Joal Boy Ordi waaw waaw eleerana eh, dama ye eh. akadim bige eh. waaw waaw Boy Ordi Gueye bu di bëgg sama dëkk waa Palmarin di ko jëlee ngunu maan ndeysaan sama grand Kamil maa ngi lay siyaare waaye gars yi siyaare sama parrain bi mat monsieur le maire de Fimela monsieur Karim waaye kenn du sama invité d'honneur yi suñu grand Ibou Diaw ndeysaan borom Joal ak Léopold Faye ñu ngi koy siyaare bu baax a baax waaye Cheikh Ndol le jeune maran sama mag sama lépp maa ngi koy siyaare bu baax deuxième saltige sama doom day te bu Joal Boy of final poids lourd fi ci eh, ceeb pot nag wee ceeb ak Boy Fongse eh, hee eh. hee ceeb ak Boy of ceeb ak Boy Fongse da ko bëgg gën saako hee da ngay amaat avertissement Boy of di da ngay amaat amaatee beneen da ngay ñàkk Boy Ordi am na deux avertissement Boy dem Jémbu Joal Jémbu Joal ak Boy Ordi ceeb jàpp na ceeb jàpp na ceeb ak Boy Ordi boo génnaatee da ngay ñàkk Boy Ordi Boy Ordi boo génnaatee da ngay ñàkk daan na Boy Ordi démb Joal jëndal lamb ji